asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun duñu seetaan noo ngi amaat mbégte toog fii ci kanam maam Thierno Ibrahim moom sëriñ Cheikh Awa Balla moom maam Thierno Ibrahim rakki sëriñ Touba xaadimu rasool ja nga xam ne waxoon na ne sëriñ Touba du dégle lees ma nit Thierno Ibra Faati du dégg ci ndigalul sëriñ Touba lu mu jëfut moom lañ toog tey nag ci keppaaram gii nga xamante ne bii fala Serigne Cheikh Awa Balla toogoon daan liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu di daarul mannaan mu fas yéene yëkkati ay kàddu yoo xam ne saa yu ndigal bàyyikoo ci Serigne Touba jaar ci kër maam Thierno Ibrahim borom daarul mufti rawatina Serigne Abbas mii fi nekk toog fi toogaayu borom daarul mufti ñuy ñaan sunu borom yàggal ko fi lool doole ak wéram. alaaji maam Thierno dana yëkkatiwaat ay kàddu ngir laabiire jullit yi laabiire taalibe yi. waaye nag soññiwaat leen soññi mbooleem ko aju ci sëriñ Cheikh Awa Balla ndigal loolu nag mooy kenn nattablu ne dégg ngeen kàddug sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa mu yëkkati ay kàddu jëmee ko ci liggéeyub sëriñ Touba bii nga xam ne mooy université bu Touba waaye dégg ngeen itam kàdduy sëriñ Abbas Mbacke muy soññ mbooleem ko aju ci maam Thierno Ibrahim borom Daarul Muxti waaye sëriñ maam Thierno musta jóg ci di soññee musta jóg di ñaaxe dox doxin woo xamante ne bii mooy fa way juram ya tegoon tànkam tege ci siraatal mustaqim di soññ mboolem ku ne ci ginnaawam moo tax mu fas yéene yëkkati ay kàddu jëme ko ci mboolem taalibe yëpp ñun ñëpp ñu maa sa déglu alhaji maam Thierno moom Serigne Cheikh Awa Balla moom maam Thierno Ibrahima borom daarul mooti. auzu billahi samiil alim mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidil anam sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yëpp yéen mbokki taalibe yëpp yéen mbokki dëkkandoo yëpp ñoo ngi leen jullit ak morom bu ànd ak yar ak teggin ak teral leen fas yéene jottali loo xam ne dinaa ko bokk seq ko te wet gi ma féete yàlla jiital ma ci ma fas yéene jiitu ci na ma ci war a jiitoo ànd ko ñi ma ko war a àndal di ci soññ sama bopp duñ soññ moo di ndigal yi nga xam ne jóge na ci kër Sëriñ Touba ci làmmiñ Cheikh Mamadou Mountakha xalif général de Mouride jaar ci sëriñ Abbas mi xalifa borom Daaru Muxti di suñu waajur di suñu sëriñ jëm si ci kër gii di kër si Awa Balla boobu tey joxe ay ndigal yi am na ñu ko dégg am na ñu ko déggul tey ne ma bëgg bu baax ba ñëpp yëg ko mooy nu sax te woy te la xam ne noonu la ñu yàraloon digaloon nu ko tàggat ca bàyyi nu ca te yaakaar na noo ca ñu bañ a waru bañ a war dafa yéene sax ci loolee loolu nag moo sax ci ndigal suñu borom ci jaamu ko ak ragal ko ak wattu ko ak fugloonte ay ndigalam tey daw ay tereem kem suñu kàttan ci def nu motalee ko suñu yéene kon baaxu suñu borom dina ëpp xam ne moo fi indi lii yor te doonuñ ci dara lu fekk nu ci rek ci ndimbalam ak yërmandeem muy sëñ Tuubaa mi nu yàlla xéewale te moo nu ko tànnal boppam mbooloo ci ñu war ko sant yàlla bu baax te jàpp ci te mooy ci te roy ñaa xam ne ñoon ci jox cër bii nu am te jëfaleen ko mayoon rawane te nag Cheikh bi dafa di jorom ci jëfaliñam lu mu wax moom lu ko wax moo jottali mbooloo lu mu jëf moom la ci jiit moo jottali mbooloo mi loolu dox ba agsi fii tey suñu waajur nekkoon fi sàmm ko toppante ko seen mag yu baax ya fi nekkoon di waa kër Seexul Xadiim toppi nu rafet ñu sàmm ko téye ci diine ci ngor ci fulla ci fayda ci taalibe bi ci pastif ba agsul ko suñu yàlla agsul ko suñu loxo tey loola it yàlla def na du sopp ko mukk incha allah rawatina te nag jëwriñ ji yàlla tànnal jëwriñ yi fi jaar yëpp kenn ku ci ne la ma leen daa wax rek laa wax ku yàlla seet bi def rek mat na ko sëkk waruñu ci am lu ne seet waruñu ci am lu ne xeet la tàmbali Cheikh Mamadou Moustapha ba Cheikh Sidi Mokhtar mi làqu barki dem ku ci ne sa jëf ñëpp gis na ko sa pastif ñëpp gis na ko te loolu la ñu wombat Cheikh Mamadou Mountakha mii nag day sunu tànn bopp rawatina nag di kër Cheikh Awa kon nag ndigal loolu yi nga xam ne yëkkati na ko ci bëgg a liggéeyal sëriñ bi bu ko kenn mësta liggéeyal ba àggu ci fa kenn àggul nañ ci am pastif te fas ko yéene ànd ak moom ànden bu rafet te def ci fulla fayda ak jom bala séenu ci ñun lépp mu gis lu ko ëpp loolu du lu ñuy wax lu ñuy jëf la jataay bi nag bala ma àgg ci li ma tax a jóg am na lu ñu ci waroon a feeñ te feeñewut ci jataay bi moom laa leen bëgg a leeral moo di ñoo bokkal kër gii ñu sama doomi sëriñ di samay sëriñ di samay jëwriñ di jëwriñ Cheikh Abala mu Cheikh Mamadou Mokhtar mi nga xam na mooy jëwriñu kër gi ak Cheikh Ateex ak sëriñ ma Mahfouz ak sëriñ Ahmadul Karim ak sëriñ Mamor ñoom ñoo war a toog fii tey waaye li tax woowuma leen leen jotaay bi laa bëgg a leeral loola moo di dafa am lu ma bëgg a ci ñoom te yàlla rek tax te loola nag buñ toogee ma di ko seere day nuuru ndéggatal wala njëstal te man fa suuf yéene def ci yooyu yaar dara fas naa li may wax li may jëf lépp yàlla dana xam ne mu jëmm ma tax loolu nag cant gu may jiital ci ñoom bala ma leen a wax dara ndax fi sëñ bi jógee làqoo ak tey mi ngi bëgg ma ab diir yàlla na fi gën a yàgg tan fekk ko te tal ko waaye boobe ba léegi mosuma yëkkati dara ci kër Cheikh Obal loo xam ne ñoom ñii ma bokk sëñ bi ñoo ca man ñoo ma ca man man sama bopp ñoo waxuma la teel bii loolu nag faw ma seere ko ngir yàlla moo des gor wala ma def jullit kon nag loolu maa ngi koy seeral taalibe yëpp di ko seeral bokk yëpp di ko seeral suñu kilifa yi di Cheikh Mamadou Mountakha ak sëñ Abbas li nga xam ne man de lu des ci man la des waaye samay rakk moom dara di sut ñoom ndax fañ tegoon Cheikh Abbas lu teg nañu fu këpp ndax li ma leen di teg ak li ma def la ak li ma leen sant seen ci woon ci ak ñoom te ma li ma leen di sant rek def nañ ko defe nu ba jëli ba jéggi ko muy góor ñi muy jigéen ñi kon nag ceer ceer soos yi moom laa bañ ñu teew ma di ko wax ma leen ma di ko seet yàlla rek tax wala yasal ala ma fi xam bi ma di ñaanal nag yàlla na yàlla sëmbatal seen barke baay ba ak ak baaxam ga ak diineem ji ak ngorom ga ak bàyyiram ba ak wërsëgam ba lépp yàlla na ko yàlla sëmbatal seen kaw ak seen i doom ak seen i sët ak seen i sëtaat ba keroog yowmal xiyaamal akbar allahuma amin bi hurmati seexul xadim wa isatul sallallahu alayhi wa sallam rek mooy loolu mënul woon ñàkk a seere soo ko tàmbali wax ji a bëgg nag takk boobu nu takk woon ak boobu boobu boobu boobu nu bokk jom ci kër Cheikh Abdou lu koy yëkkati ak lu koy ak lu koy taaral nu fas ko yéene dolli te takkuwaat ta xam ne wolof ne borom gaynde mooy fii borom borom wëllu mooy fii teg dënd gaynde kon nag sëñ Yoro Faty ku na xam na foom mu seeti woon Cheikh Ahmadou Bamba kon loolu bu mu laal suuf mukk mooy suñu jom nañ ci teg suñu jom ma bëgg nag nga xam ne sas du dara lu soññee waaye gor su bu ne la nga wax bu dee dëgg ci yow ci digg sëñ Tuubaa saw sasu xol ak sax sasu xel te na nga man ta xam ko te yàlla xam ko moo ëpp doole lépp ma bëgg nag te sama bopp ko tàmbalee kenn ku ne nga def loo man ak loo mënul def loo daa def ak loo dul te yokk ko te am ci positif nga xam ne defalu ko kenn ku dul sa bopp yoon wi nag ki ko sos ci sart yi ko teg rek lay doxe tuuba li habdin muridin saadixin lahuma waaye nag bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyati mm-hmm. yettu yooyu ku ko woyofal rek da nga tudd murid waaye nekkatu ci murid wala boog boo demul àggoo ci saa dex ga sëñ Tuubaa noonu nag dana fas yéene la sëñ Abdoulaye waxoon fas nu yéene yem ci murid dana fas yéene doon ay saadix kon nag ma bëgg la nuy may loolee nu sax ci bu baax te góorgóorlu ci te fa te way ci ma bëgg na addee yëpp na fonkaat ko ku jotoon sas boo ca mën a dolli fukkam na ko dolli boo ca mën a dolli lu ko ëpp na nga ko ci dolli ku ko jurti na nga sas sa bopp ci soxol te xam ne yàlla moom xalimul xabiir la moom dara ump ko la nga denc soxal xam na ko la nga denc sa gaal xam na ko bu la yàlla jaralee yàlla xam na bu la yàlla jarul yàlla xam na te mm-hmm. yàlla képpay fay kon nag nan teewal yàlla fi suñu bopp itam jaral na ko la maam saxante waxoon kat moo moo mooy may ndam ba maa nekk soxla di magam ji teddi sëriñam ba ba ba bëgg a si lay ba maam sax xamul muy def mu ne fëriñ fi kanam ak taar ak ak sibisim ko ak yéeram yu rafet yi nga ko ba génn lay ba am ko mel ni ko mel ni koy xaw a yedd naa ko lii ngay defal ku koy defal sa doom bàyyi mu tontu ko na ci yàlla sëñ moom dara ump ba sëñ bi boo ko laaj ko ne kooku lu mu wax mu naka naka mu ko wax lu mu doon wax mu ko ah, daa mel ni ma xaw a yedd mu ne ko loo ko tontu nag mu ne ko dama ko na ma mu ne ko xàkka ah, saa ginnaaw jaral na rek baax na waaye jaral na ko waaye jaral na koy tey de ku ne tegi sa bët ko Sëñ Tuubaa jaral ko yàlla jaral tan bàyyi caaxaan yi te xam ne yoon wi kat barkeelul mayu ci la nga bëgg liggéey ci may la nga bëgg ñu doon jëf ak ñu doon barkeelu bokkuñu ko fay tey de te ku ne teg na sa bët ndax Cheikh Ibrahima Fall saa ba waxoon na mooy dëgg noonu la bu ñu demee ba si kanam daañu xam bien ñu jënd ak ñu may nan fa seen jënd nag jënd rek ka wóor kon nag daa bëgg ñëpp tokkuwaat di góor di jigéen di mag di ndaw kenn ku ne loo mën ak loo mën na ko fasoo te yàlla tax ak jëmmi sëñ Tuubaa te def sa jom ci liggéey bi te addiyee yëpp bëgg naa mu daje balaa la 30 avril incha allah rabbi fu waay mën a nekk ci réew mi ak ci lii mooy sama ndigal ku dikk maa ngi si ku dikkul maa ngi si tey na ngeen xam ne Cheikh Abal du doon daal di mukk nag damay dund man dara na miraas billaahi allahu akbar Cheikh Abal doon daal de kon nag booy bon takku buñ bëgg dara nan bëgg ngërëma Sëñ Tuubaa rek moom la Cheikh bi fa bëggoon ba li ñu fekk fekk na ci te defal duñ ko dara fekk woon ko liggéeyam bu baax bu barkeel ba yàlla nangoo te sëriñ ak ngërëmal sëriñ ba rek moon topp suñ bàyyi nekk ci loolu sàmm ko ci ngor ci jom ba jóge mu nekk suñuy toxo tey buñ xool dara buñ déglu dara nit ñi nekk jàkk ñoo bokk ñoo bokk fu ñu xëy ci ndey yeeg bàyyi waaye mosu ñoo bokk fu ñu jublu mosu ñoo bokk lu ñu wut mosu ñoo bokk nu ñu ko wute ñun nag li ñuy wut nag ñan ñan ñan ko ñan ko ñoo ko indi suñu loxo nañ ko dum tee rek mooy yoon buñ ko wàccee rek juum dañ ko fas yéene buñ ko wàcc mukk dañ fas yéene doon taalibe Sëñ Tuubaa te di saadax te di ko liggéeyal guddeeg bëccëg te yàlla tax te bañ caa séentu dara lu ngërëm ndax bu nu amee ngërëmal am ngërëmal yàlla am ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te teelal lépp na leneen lu mu doon suñu yoon nekku ci kon nag lii rek laa bëggoon a woote moom laa bëggoon a wax koo xam ne kii ab taalibe nga bu nekk ci réew mi bu nekk ci bitim réew foo mën a nekk da nga ko dégg da nga ko yëg te yëgoogee sa yëgu xol ga sa digg sa borom moo kopp doole kon nag na ñëpp takkuwaat dafa siineel jëf lu mat jëf nu dajale ko teg ko ci loxo Cheikh Mamadou Mountakha teg ko ci loxo sëñ Abbas mu teg ko ci loxoom ak lépp di ànd ak liggéey te it nu am jëm nag ci kër Cheikh ba Balla gii xam na mooy suñu waar te bu booyee nu am gàcce suñu waaru gàr wekkat du ma ci mukk te duñ ko teggi waaye nag suñu waaru bopp bii dañ fa yéene mu bañ a booy te kon xam ne Cheikh Awa Balla jàmbaar la kon nag ku wuti jàmbaar ba bëggee noppal yaa sonn sa bopp te nit bala doon balaa sonn dëgg dëgg ñu ne góor la ba dégg ñu ah diw góor la ba kooka nag moo ngi soog a dugg ndax bu ne añ ñu ne wu na bu bu aat ni ko ñu jot ko boo xasee bi wéyul rek fa xool nit sa kanam xool nit sa gannaaw ndax boo lay xool nit boo déglu ñu sa gannaaw seytaan ak jay la wala mu teq la wala wala mu wala mu taxaw loolu mbokk yi liggéey baa ngi noonu nee na kuy doxee doxiinu ku dem ma dem ku demul ma dem boo geestoo danga gis mbooloo mu bari sa ginnaaw soññe ba soññe jeex nag soññ sa bopp moo gën a wóor alxaaji maam Thierno dégg ngeen ko ci biir ay waxam nee na kenn ku ne yaa gën a xam la nga man la la sëñ Touba jaral yaa ko xamal sa bopp kon loolu mooy sas wi bala ñoo àgg ci la 30 avril fas na yéene moom miraas boppam ak lu ko nit ñi jox jébbal ko ki fi nekkal alaaji maam no mu jox ko ki fi nekkal Serigne Touba Khadim Rasoul ci liggéey bi nga xam ne Serigne Touba moo ko ñaanaloon boppam tam des fi ci aw naalam moo waxaloon boppam bil Moustapha li banaa xuduusu madrasatan biha yazulul aza wal jahl wal kabadu kon noo ngi ñaan képp ku ci def dara yàlla na faj sa aajo bi barkeb Seexul Xadim ci daraje maam Thierno Ibrahim borom Daarul Muxti waaye ci daraje sang bu tedd bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu